يسر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير يسر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير ولا لعين لسواي مدبرا بما هلا ذري بمدبرا مخا توجه المكاره اليوم باق غبا بذكره وهو لي عن رديت أو عني رادي بلا مكارع ولا أمراد رد لغيري جاد شيطانا من تيبل ممر والأوتانا فرد لغيري جاد الأخين هي سوق غالي غيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي سفت وسفت نبي توفيق عاد قاد والإلهام عدد لي مال بكام بدت لي اليوم برب الغيب أغازني ممن خلو وخيب لا يتوجه لنهوي مدعب عني مخدم كاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد القديم قد ثبت شكر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير di ziyaara bu baax kilifa gu tedd di sunu gan di gan goo xam ne barab bi bàyyi nañ ko xel lool ngir ab taxawaayam ci lislaam waaye ngir ab taxawaayam ci yoonu sëriñ Touba wii ngir ab taxawaayam ci xasiiday yi Touba yi muy sëriñ Hamsatu Mbàkke di ko ziyaara bu baax te di ko ndokkeel di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu yàggal ko fi lool te wéral ko ba lim yéene liggéey te muy liggéey boo xam ne borom Touba ko ko dénk mu seq koo ñun ci xasiida yi suñu borom defal ko tawféex mu def ci lu kawe njort di ziyaara bu baax sëriñ Cheikh Ibrahima Fall Diop xalif ab sëriñ ñaan Diop bi toog ci jataay bi di jaarale sunub siyaare ci njabootuk sëriñaan ñaan bi yépp ci aw turam ak loxoom di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér bala way juram ya ak maamam ju baax ja sampoon taxawaloon ko ngir jëmmi borom Touba suñu borom kàttanal ko ba mu def ci lu kawe njort xam naa wax ji nag du gudd lool waaye nag waxi mbégte la rek ak waxi sant sunu boroom tey sant bu baax a baax waaye nag day lu munta ñàkk mu mel ni li may jiital ci samay wax nag mooy mbooloo mi fi teew yépp képp koo xam ne bëgg nga sa aajo faju nañ dajale addiyee borom Tuubaa ñu jox ko Sëriñ Xamsatu mii loolu nag laajul rëg-rëg yi kenn ku nekk fa mu nekk nañ ko dajale rek ndànk nañ ko dajale soxna yi it nañ dajale bàjjen fat jóg ñu dajale ko ndànk ñu jox ko addiyee borom Tuubaa loolu moom man maa ko wax man mi maa ko wax képp ku bëgg aajoom faju nag na ci dugal na ci dugal dara waaw waaw yaa ko joxal sa waajur jërëjëf kenn ku nekk na ku ci bëgg ku bëgg aajoom fajo na na bokk ci lii ma wax xaaral ma teel cee dugg nañ ko dajale ngir sëñ bi daa mel ne daa daa ne yoon waaye waaye nag ñu ñu gàttal rek waaw nañ ko dajale nañ ko dajale soxna yi nañ ko dajale ku bëgg aajoom faju na na ca bokk kon nag sëriñ bi noo ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci sa taxawaay ci lislaam ci sa taxawaay ci yoon wi ci sa taxawaay ci li nga xam ne moom lañ séq te mooy xasiiday borom Tuubaa yii ak alquranul karim loolu nag ñi ngi lay ñaanal dénk gi la ko Sëriñ Tuubaa dénk nga di ci doxal pàcc bu yaatoo yaatu te ñi fi nekkal borom Tuubaa feddli ko ba mu agsi ci Seex Muhammadul Muntaqa kenn nett lu ñu ñu dégg ci kàddoom mu feddli ko loolee Mbàkke yàlla na nga ci def lu kawe sa njort te ànd kook ñun ñëpp Euh, suñu kàddu nag ñi ngi koy yëkkat ci mbooleem kuréel gi ñu seqal liggéey bii di la ñaanal nga yàgg fi loolu te wér di la sant bu baax a baax ci taxawaay ak yëg gi nga am ci kuréel gi te am ko ci ahlu xasida am ko ci njabootu borom Tuubaa gi yépp yàlla na loolu yàgg ñu lay seereel na it ñi ngi sant bu baax a baax sëriñ làmp mii nga xam ne mooy xalifab sëriñ ñaan Diop te bis bii de bu fekkoon ne nee na bu mu am xañ na mën naa am mu amee feneen waaye fii moom du fi amee waaye nag ci ndigalam lañ ko fi defee ak ku bëggam ak ku gungeem ñu ci zahir ak ci baatin ñu koy ñaanal loolu yàgg lool yéene ji mu am ci ëttu maamam bii teñ rafet ci njort lool te yéene ji du leen lu dul fa maamam ya ak waajuram ya yemoon mu tàmbalee foofa te dox jéego yu yaatoo yaatu suñu borom defal ko tawféex ba mu àggale loolu te ànd kook njaboot gi yëpp ànd kook taalibe yi yëpp ànd kook ummatul islaami bi yëpp sëriñ bi kon loolu ñu ngi la koy seereel di seereel ne kilifa gu mat kilifa la ñun day wax dëgg yàlla sant nañ suñu borom loolee sëriñ si Abou Sadaan wax ne ku sañoon ku ne la nga am mel mel na la neex kilifa yu ñu yàlla booleel yépp mel nañ nañu neex mbàkke ñun nag dañ laa jàpp te duñ ko nëbbu da ngay sunu féete ngir xasiida yi lan bokk wallahi lazi la ilaha illa huwa man damay wax ne maanaam boo ma gisee boo ma gisul nag ak ñu mel ne man na nga yëg ne ñu ngi lay bàyyi xel te bàyyi xel googu sëriñ Tuubaa képp ko waral ndax nag dama ko waxoon naa la ko sëñ Seex yaakaar naa at mi ko fi nee naa la wax dëgg yàlla mën nañoo woyof waaye woyee diwul képp ku ñuy xeñtu rek sëñ tubaa tax ñu koy xeñtu sëriñ xamsatu mii dañoo gis ci moom sëriñ tubaa la mag ña doon dégg ca borom tubaa ju njëkk ja nag ba ñu ñu koo dégg ci moom mag ña nag lu ne waxal nañ leen ko sëriñ ñaan mii bi muy takk di dem ci sëriñ tubaa jóge warak di dem sëriñ tubaa Mbàkke Baari Jolof ay bokkam dañ ne woon dafa dof damay wax ne nag dof googee mag ña daan wax ndax booba jumaa ji feeñagut xasida yi feeñagut li sëñ bi liggéey lépp feeñagut dof googee kenn ñemeetu koo wax léegi kenn ñemewut a topp sëñ Tuubaa wala waaye borom Tuubaa ñu naan daa dof waaye nag dof googee day mbàkke wutal nañ ko kaddu yu baree baree baree bare kaddu yooyee nag damay wax ne mag ña dof googee ñu doon ñu doon ñu doon jëfandikoo ñoom ñun faw ñu barkeelu ci kon nag mbàkke ba ñu ñu loolu ci sa jëmm ji ndax sëriñ Tuubaa képp lañ ci gis nag te moo tax ñu topp la te ñun nag buñ kuñ gisul sëriñ Tuubaa nag moom ya duñ ko duñ du am de du am de waaye buñ ko gisul woon dëpp rek nag waaw kon nag mbàkke foofu lañ nekk di la ko seereel bu baax a baax di ñaan it suñu borom yàggal sa taxawaay barab bii it ñëpp a ngi lay sant ndax gis nañ yëg gi nga yëg barab bi ak yëg gi nga yëg bis bii ndax xam nañ saw doxin xam nañu waxtu yi ak xataay beeg yëpp waaye gis nañ yéene ji nga am ci di fi teew ak di ànd ak ñun liggéey bi Mbàkke loolu yàlla na yàgg yàlla na nga yàgg ci suñu kanam ñu yàgg ci sa ginnaaw ñu lay seereel ne it liggéey bii njabootu sëriñ ñaan gépp ñu ko ànd ak ñun li ko tàmbalee ci xalifa ba ci kër yi yëpp kenn ku ci ne njaboot ga ne ñi nga ànd ak ñun liggéeyu borom Tuubaa bii ngir lan xam ne liggéey bii kat liggéey borom Tuubaa la te cërub sëriñ ñaan la ñu di ko defee ci bërëbu sëriñ ñaan bii ñoom ñëpp ñu ànd kook ñun ci zahir ak ci baatin ñu la koy gérer bu baax a baax a baax Mbàkke may daaneel samay kàddu di sàkku nga ñaanal ma ñaanal ñi ma àndal liggéey bii loolu damaa ñor lool damaa ñor lool ndax man kat Mbàkke fi mu toll ni ngay gisee nii dara gondi ma lu dul borom Tuubaa liggéeyal borom Tuubaa képp ba ma gondi it nag ma mën a am liggéeyal borom Tuubaa ma ko lu dul loolu soxlu waaye am na jël bëgguma sëriñ Tuubaa rek laay wër waaye nag Mbàkke bëgg naa nga ñaanal ma te ñaanal ñi ma àndal liggéey bii bu ma nee ñi ma àndal liggéey bii nag mooy ñi ciy jëfal ñi ci yéenee jëfal ñi ñi ci ànd ak man ak lépp ci lépp rek ci zahir ak ci baatin nga ñaanal ñu suñ borom defal nu tawféex li ñu yéene liggéeyal borom Tuubaa ñu mattule ko ndax xool nañ adduna ak alaxira dara gënu fee jiitu liggéeyal borom Tuubaa dara rëwu ko fi dara gënu ko fi Mbàkke yaakaar nañ la ci nag ñuy sàkk nga ñaanal nu ko te ñaanal ko mbooloo ay ndaw bari na ci ndaw yu bari bëgg-bëgg waaye bëgg-bëgg yooyu yëpp gis nañ ne borom tubaa rek ci la jublu te ñun nag buñ ko buñ yaakaarul woon ne ci borom tubaa la jublu duñ ñaan mukk ñu ami xéewal ndax man xéewal guñ liggéeyaliwut borom tubaa xaw ma fu borom jëm ak moom loolu duma ko ñaanal kenn bu may ñaanal nit xéewal dama ko ñaanal xéewal goo xam ne da koy liggéeyale borom tubaa mbàkke na nga nu ñaanal yéene ji ñu am ci sa jëmm ji te am ko ci liggéey borom tubaa bi ko ci liggéey mbooreem liggéey borom tubaa yi sun borom kàttanal nu lu kawe njort xam naa foofu lay daaneelee bu bu laajoon tudd tur ma tudd tur yi yëpp waaye nag du ma tudd wenn tur di bàyyi wenn nag ndax ndax ndax ku ma tudd bàyyi ka ca des rek muy muy defa ci man waaye nanga xam ne daal sant nañ bu baax a baax gërëm nañ bu baax a baax suñu yaakaar yëpp dolli ko na ndam loolee nga nu waxoon ba mu fi ñëwee nga ne ñu am ngeen ko ci mbàkke loolee ba tey de ñu ngi ciy noos ñu ngi ñu ngi ciy noos ndam loolee ndam la ndam la dan koo gis jëxëran ak suñuy bët waa dan koo gis gis nañ ko de wallahi mbàkke kon nag yàlla na yàlla yàggal la yàlla yàlla wéral la te yàlla yàggal fi suñ kilifa gii te wéral ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mbooloo mépp ngeen may ko tuuti rek mu am taxaw ci sëñ làmp mi ci jetaayam bi màgg bi ni mu def dafa rëy lool ci moom sëñ làmp sëriñ bi nee na mi ngi lay beral sa nuyu bopp sëriñ bi nee na mi ngi lay ziyaare sëñ bi nee na mi ngi lay ñaanal sëñ bi mi ngi sàkk ci yow ñaan sëñ bi na mi ngi lay xoole bët bi ñu daa xoole mag ñi nga xam ne ñoom nga wutu di sàkkul ñëpp tawféex ci jëmm ji teew muy sëñ làmp ci jotaayam bu tedd bii ñëpp ñaanal ko moo gën fa yàgg te gën a wér xelam it mi ngi dem ci sëñ ñaan mu mag moom yi nee na liggéey bi it nañ ci bàyyi xel mag ñoo ñi di leen ñaanal di leen fasaale ci xasaay bi Cheikh Ibra sëriñ bi nee na mi ngi leen nu yëpp mbooloo mépp ci yow di xamal mbooloo mi nii leen bala moo joxe kàddu mbooloo mi mu ngi leen xamal ni jëmb jii di Cheikh Ibrahima da koo jàpp jàpp goo xam ne moom du koo yëg léegi rek laata moo tàmbali waxtaan wi la sëgg maag sëriñ Cheikh mu xamal moom jëmmi Cheikh Ibrahima yi da ko jàpp ba mu yëg ni jàpp na ko da koo yëg ba mu yëg ni yëg na ko kon nag nee na loolu day lu rëy fi moom mu koy seereel mbooloo mi jëmmi mbooloo mi nag sa Ibra sëriñ bi nee na ngeen dalal seen xel ca lim leen waxoon luy dolliku la waaye du luy wàññiku ndam loolu yi nee na saa su nekk luy dolliku la ndax da ngeen a doxin wi doxin wi ndam loolu yi dangeen ngeen koo dox wax ko jëf ko kon nag mboolem ku fi nekk ku fi ñëw di jàng xasida kuréel yi ak rajaskat yi ak duruskat ak ñi jàng alxuraan ñëpp sëriñ Xamsatu nee na seenu cant moom nee na moo leen ko santal boppam ndax dafa jàpp ni képp ku fi ñëw rek ak lépp li waaye def rek moom la war kon nag muy ngi sant mboolem ku jàpp ci bis bi ci zahir ak ci baatin ak ci kuy durus ak ñiy togg ak ñi ni seen alal ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi marché di leen sant sa Ibrahima sëriñ bi nee na xolam set set na guyu liggéey bii ngeen fi saxalee sëriñ Touba yàlla na ko sëriñ bi gën a nungu gën koo ful lii rek mooy yoon wi barab yu tedd yu màgg yu yu rëy yii lii rek la yellool xam ngeen ko yéene nga ci kon nag nee dox leen te bu leen gesu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu na ñëpp tàllal